ku jooju te am sacré yàlla bi ku xamati la te sa kër ku xamati war fee nekk waxuma chauffeur bi beneen jàngeen mooy mun a ñëw rek ubbi saagam ne ko xoolal mu yéex a indi lumière may mun a génne portable am di ko taalal mu ne ko soxlawul sa portable nit war naa manqué respect te muy doomu aadama comme yow te Thierno bëgg lu baax respecté ay nitam bu Thierno respecté ay nitam yéen ñi nekk ci bunt bi da ngeen di respecté ay nitam. pourtant nag loolu lañ leen di jàngal saa dañuy bañ dañoo dëgër bopp dañoo bëgg dëgër bopp xale day yaw xale day yaw moo tax du am wax muy bëgg a xool bi di wax ak mu jóg fëgg dënnu nekk dañuy songoo day yàq sa xale yu baax mu jóg fëgg dënn ne ko boo bëggee ñu songoo mooy nijaay maay sooda maa la gën a dof gën laa aan ma toog da dem seetaan xam ne xale bi du songoo moom sa kër kenn du fi songoo kenn du fi xeer ndax barke moo fi nekk te loolu fi ñam kenn du fi songoo maay wax lii ratissement da ngeen koy bàyyi ci li ñuy def ba li nekk ci ne moom di génn bu fi kenn nekk fi di bind ay kurtu bàtt di wax maa ko wax non dafa fees moom may mënaante ne moom benn rek la amoon ci moom kii am téeméeri junne téeméer téeméer mooy lan cinq cent wala téeméer mooy ñaar cent cent junne la am may ma rek yaay junne manque la nekk maakalaay mais ak sa yaay. Maodo moo tax day sellal rek. sa yaay dafay may na may na may na xaaral xaaral ture yóbbu naa ko ture ture may na ko may ma may ma balaa ngaa jug da ngay lekk sa xel dal nga taxaw kàmbaat jàkkaarloo borom bi moom ak faama baas bëgg lu yomb naan ma naa ko xaar ba mu ànd génn maa bañ maa laa ko góor gi mu dem may mu ne may mu ne nag buñ dogu saa su ne day ndax ku am yomb daal la lépp day leer. tey da ngeen jinde bi wax na da ngeen euh, raki macha allah moom it ci soxna yi la bokk fii ci taalibe ci taalibe yi ci kër gi. dafa dell jinne macha allah nag mu koy ci muur kóor kóor jublu fañ ci wér de fañ li ngay ñaan ci léppay maye. te yaay kuy dem dangay dem li la teg kër Thierno xamuloo ko may wax sa a bi fi ñëw naan bu doon si sagoom dangay dellu ci sëy fii ngay toog utuloo liggéey kenn nga ci dëkk ci wetam ngay toog ba lépp pare nga soog génn ci kër maa la wax lii. mooy VIP bi. Mari Ndiaye moo ko buux Mari Ndiaye ko buux moo ko jaxase ak njéeme ñoom ñaar ñëpp ay bor xol yu baax waaye saa yu xay bu xoolee saa yu xay bu xoolee Malick Ndiaye ne ko looy xool looy xool nga mel ni kunkum mu mel ni kunkum di làq di làq rek ci ginnaaw la lay nekk lu dem non muy jéem a charmer am sëy muy jéem a charmer am sëy yow xamoo loolu xanaa waaye am sëy gisu ko sax xam jabar xooloo ko nag jabar bi dee na moom it Papa Ndiaga naan Papa Ndiaga naan day jéem a faj faj mu dox dox waaw waaw faj dinañ ko nox heure ba mu tuur. Papa Ndiaga ma Papa Ndiaga Dieng. Moussa Dieng. Moussa Dieng. nee na day nekk sa taalibe pour booy booy dem dem te yow deewoo sax danaa deewul sax nag ba muy xaar nag nga xaabal xaabal naan day faj lu muy faj di woon dëkkër mooy man mayoo ma naan day indi muy mën a bay rek ndax ceeb la jox ko bay rek soxul réew dinaa ko jox ko waaye. xale bi day rus nag <laughs> bu paree ba seetaan yi lépp lépp lépp dañuy wax de man monsieur ñee du faj may wax mu naan yaa mooy soxna jabar bi ñaaw doom soof mu indi fi jour leen pour xajo muy jaay ne day daanu daanu mooy mënul wax ak moom mu ko bu ma indi fi itam na na na ko ceen faj mu ne moom day faj kon lu muy indee kooku kalaasu jibi jibi nii sax moom dafa soof maraate nag daba nag daba nag daba may wax croise de barab ma ah, man damaa foogoon sax def yàlla ma koy jàng ci moom di jaar mu yëkkati blouson yi blouson yi naan ah xoolal blouson bi cinquante mille jën la ci def baati mu jaay léegi blouson bi muy sol ku deful cinquante mille du ko am mu jaaxal ndax ceen daf ne blouson yi moo gën a yiw gën a am pourtant boo yëkkatee sa cër bu génn waaye jibi dafa soof dafa sob dafay baax baax waaye du defee yaa de waxuma loolu defee yaa yi mari ñay dem benn moo fi des te dafa violé benn xale te ko suturaal boo ko suturaalee ba pare danga koy defal ne guddal sa bopp mu ber utali boppam daan doole moo gën nekk di tuur di dajale jaxase nit ñi man maa wax loolu man Fatima. tey jinne Fatima mooy wax de jinne yi lu ne la ñuy wax. man bëgg raxas kër gi. jinne yi dañoo wax lu ne. bëgg raxas kër gi ceeb man damaa nekk te association bëgg raxas kër gi xale bi maa ko bi waaye xelam xolam moom màcc ci ay idée. mu toog ba mu yàgg xool ne war naa teg Ndeye Marieme ci wetam ñu nekk te association wallaahi ñun ñoo koy teg te dinañ ñëw fii nga di leen présenté booy leen di présenté dañuy siggi dañuy siggi ndax ndàmbal la ñu bëgg pour association moo tax ñu àggul deux millions seen doole téléphone te sa kàttan sa mbaax ñu génne deux millions. may wax ne la dangaa daan amoo xaalis ak nga am xaalis yow patron Dakar ñëw seet si la wax nga ni ko démb ni waaye dañu naan am naa amul ak am nga ànd ak jibi tegge loolu lépp nga ànd ak xale bi dem police foire xale bi moo gis jinne bi fa tool woon daal di wokk faama baax ko kii jinne la muy fas kanam ñu fas kanam ba ñu jàkkaarloo Thierno Thierno ko faale foofu lañ koy fay foire. kayitu association bi bañ demee gendarmerie foire pour suñu kayit. xale bee ko waroon a jëlee mu woo la xam na ne amoo jot mu ne la bàyyi ma jëlee jóg xale bi borom baax yow tam nga gënoon hésité bu ko déranger xale bi nag dafa am njaboot bu sew nga ne ko ah xawala rek xawala rek mu ne kon bàyyi man nag maa war a def dara bàyyi ma dem jëli ko jaar si foofu. xale bi passe taximaan bi ci kàttanam ak ci mbaaxam waaye soxna awa mi yor lu koy da koo bëgg a wax daal daa di mus dafa rëy war na ko wax ndax xeex na pour jàkkaarloo moom waaye dafa rëy bàyyi ko foofu muy tànn seen tur police bi nekk di signé nag su waxoon ci soxlaa bu mënee wax la ko duñ ko développé waaye bàyyi ko foofu ñu takk seeti di sol ay pantalon di sii suñu mbokku policiers yi suñu mbokku gendarmerie yi macha allah ñu ngi nuyu commandant Samb macha allah police parcelle. leeralal de du commandant bi nekkul sa kër de. déedéet déedéet du commandant boobu de. kooku xamul dara da doon sëriñ Diouf. kan dafa bëggoon xam-xam. kan noonu. commandant Alioune Badara Ba. xam-xam la bëggoon. ak nokk xale bi. xam-xam nag du noonu. te xale bi du foddu caaxaan. man ku bëgg a am ci man xam-xam. mu feebarloo doomam indi ko fi. da ngay ñëw torbeyoo. dafa feebarloo doomam indi ko fi pour bëgg am lu nga xam. boo torbeyoo. zéro la am zéro la am da doon def def lu rek waaye amul mun naa noo faral amul góor. dina mooy wax kon nag. macha allah station nga woo ko muy bëri bëri ba ak a bëggoon a ñëw waaye dafa bëri maa ko bloqué man Fatima. maa yor association bi maa ko bloqué am na ku ndaama ku gàtt ku fa Mamadou Ndiaye ñu dugal foofu ku place ah. ku gàtt bëgguma koo frustré foofu du place am ñag bi dafa ëppal ñag bi waaw Mamadou lañu wax ñag Mamadou Ndiaye dafa ëppal waaw buy nomee ay nit du waxtaan ak bureau yow yaay kilifa bi mu yéeg waxtaan ak yow waaye mu lay jaay muus ak maa ngay defar ba xër xër ba xër ba ëpp sa ginnaaw sëriñ ñëw yàlla yàlla yéeg ànd ak waa association bi ñëw ñëw lëre ndekete Thierno waxu ko Thierno ci bés ba la ko xam waaye xale bi ak muus xale bi toog ci wetam dégg ci ay kàddoom waxtaan bi daal di xam ne nag du tànnee ci sëriñ bi tànnee fan ñuy jaay ñooy la waaye ñu mu tànn duñ ko ne ñag ñu mootu jaay bopp jaga moom Mamadou Dina yaa ngi lay doon xel. bañ na ko ba amul doom waaye jabar dina lu bëgg tuuti nag am solo. xas naa suma fils président jabar ji dafa baax. jabar ji dafa baax dafa nuru yaay ndaw sax tuuti waaye. moo tax saa su ne bu ma ko woowee téléphone nag jabar ji lay dégg waaye ay bu ko tey bare mu woowee. ay saf saf ci boor. sax sax lay def bon fiir waaye day ma dem sax loo wëcc da koy këyitloo di ko jaxase moom jinne bi moo koy jaxase jinne bi nekk ci moo koy defal mu tàkk pour muy allah. guddi jinne bi. mun nga génn ci Maymuna génnal ci soxna Maymuna waaw dina yóbbu maama Màkka macha allah moom it dina dem Màkka. yaayam amul fit yaayam amul fit xamul dara jàngul école daa bëri gerte rëy naa laajte. moo tax xale bu ma bëggee yóbbu màkk rek loolu lay xalaat dafa bëgg a boole ak maama. mais dara yaay bu demee màkk dara léegi am na ay guide. waaw ñooy wax nga topp duñu wax nga topp même boo jàngul sax loo wax duñu wax nga topp si. moo des. mais dara balaa boobu rek dinañ ko takkal fi. itam moo des waaye moo war a ànd ak maama. buy dem rek yow. maam ji nag ak a bëgg boppam dem lu nekk di moom mu naan su ko defee yi di daal ko teew naa yeyoo. teew naa yeyoo te ñu ngi tugaleel. tukkal mun a dafa bëgg moo tax tey aar maam ji dëmm boobu dëkk ci suuf dafay dogu ceerno ne woon na ko moom moo luwe sëriñ bi nekk foofu ci kër gi mu wax ko ceerno pour mu di ko aar waaye sëriñ bi mës na jàkkaarloo xale bi may mun a yaayu xale bi ci korite bi muy jël ndawal tëgg ko yóbbu ko sëriñ bi sëriñ bi xiif naan ko man fii boobu dañoo caabi man fii pour ko fii rek mu lekk waaye dañuy dogu ceeb ne woon na ko bu waaye tey xam na ne weeru la moo a waaye bi muy def ngay xolu may mun a pour la gëm waaye may mun a bu ko yàqee minute ci benn seconde may mën a dellu si day topp jëkkër la ko yóbbu bëgg am sutura jëkkër ji dëmm na moom dëmm na yaayam dëmm na papa dëmm na association dëmm na ak seeni xarit waaye may mën a moo leen defal pur et dur ci biir koñ leen weer leen weer leen weer dee dañuy daw waaye dañuy dee par benn benn nag may mën a loolu moo nekkoon ñaar bu fekkee ne doomu aadama moo dem ci yàqu ko yàlla na leen yàlla àtte bu dee dëng la dinay mare xale ma ne góor yàlla na ko yàlla weer bëccëg na kàmm moo tax mu dee unay moom muy def xaalisam di ko faj day dee dama koo taneel rek lu tax ulay di dee parce que jël xolam xëlalam xaalisam alalam di ci moom muy war di bëgg a lekk tegu tam di ko bëgg a lekk moo tax ma di ko rey bu ma ko rey dee tax samay mën a di yàqu. hee Thierno kii dafa dee man yàlla moo ko def ko rey man reyuma yàlla moo ko rey dama ko gis seen waa kër xam nañ ko waaye dañ koy nëb yow may mën a du tax waxuñu ko xam war nañ ko a di ba Richard bi aar kër bi ku ne bi xale du pampaam dem foofu may mën a dugg ñaari bi di ko ne ko am yóbbul ma paa am woon lu loolu am. yóbbul ma paa bi maa ko def paa bi waas ko waas ko waas ko ne ko heure boo laalee mooy mën a am njabootam maay def sama béykat yéeg ci kaw étage bi weer la ba nga mel ni géej di nga bàyyi may mën a am njabootam nga ñibbi te nga bàyyi may mën a fexeel nag ba mu faj ma may wax muy ñëw naan charette bul dem ala ñaari dem ala xarit moo ko def ci escalier yi ànd ak moom war a dem ne ceeb moo koy xale bi di bloqué ba pare naan man fekk naa fa mu toog foofu lekk loo leen fa ñëpp génn naa ëpp ko ci kawam. waaw ci ne mooy wax nag actuellement nii téléphone yaa ngi sonné nit ñi ñu comprendre ne mooy liggéey bi ñu jël téléphone. gan gi enjeu bi fii gan gi moo ko def bu lay mu ñëw sa kër démb jëkkër ji moo nekk kër gi may mën a di ko dimbale pour mu wér. kon kay may mën a buy dem génne ko kër gi. may mën a wax na ko avant muy ñëw laajal yaayam nee na ko doo fi fay doo fi tabaskee wax na jëkkëram na génne xaalis jox ko yaayam di jaar ci loxo may mën a may mën a dëppoo si. nee na ko jox ko xaalis nga jox ko paas may mën a ñu ngi koy ñawal complet rouge bu solee rouge boobu ay bu solee rouge boobu mooy dee ak jàmm waaye du ko sol. léegi macha allah néegu ma koo jox néegu ma koo jox ndax may mën a dafa fere xaalisam fere xaalisam jël defi bu mu may sa yaay di ko léegi nag gis nga jàppum jinne day jël temps maa ngi nii war a lekk mënuma lekk pour pour kàddu non yow sa biir fekk yow xam nga lu ma bëgg. waaw yow ana jinne ji fi toogoon yow. moom nii di xaar. aywa muy dem ci caméra ba yow doo toog fii de xaaba xaaba ak sa. kan kan Moussa moo ngi toog di la déglu de. li ci biir lan la 1000 francs ak ticket. léegi yow gënal ci Maymuna waaw. da nga koo jàppale te yàlla tax. yooyu lañ bëgg léegi mu nekk nii nag. Hmm. gënal ci Maymuna après Maymuna mun a feex yow nga nekk ak man nekk suma taalibe. Maymuna ñu baal ma ah. Racky. Racky kay. Racky. kan kan lay baal ah. Gine lay bàyyi wala. Racky la Maymuna Maymuna lu Racky lan waaye daa gaaw a mën a awal gerte dañoo xam ne dafa gaaw a gerte moo tax ñu ko defee kóob tuuti ba mu yenu bagage yi def yenu waaj ñëw. ne damaa bëgg a ne. damay dem seen loolu dara ma doom la nga deeree. bàjjen moo ma woo. téeméer bi ne bàjjen ak moom ba dafay ñàkk téeméer bi ne la am du dal ba nga génnee ko ndànk ndànk sans junne bu ba am mooy def ci biti. mais xam nga ñoom ay taalibe lañu nekk fayuñu ma waaye dinaa leen dimbali incha allah. fayuñu la waaye yaa ngi koy fay. waaw yaa ngi koy fay. di ko jox muy sutur loolu di jox par par. tey jinne wax rek yow par par dafa sol ci bëgg a wax. waaw ngi toog ba tey nelawul bi mu jógee sa kër ba tey gëmul bëri. da doon gàdd seen waajur ak maam dem Espagne faj nijaayam dellu kër maama faj leen. moom kan jinne bi. waaw moom jinne bi. yow jinne bi yow. dafa muus xam ne bu ñëwee kenn du koy téye fii amul dugub di génnaat loolu laa wax nu mu tudd sax ki dëkk Thiès te dëkk nekkoon ci association ki ma la wax dama may feeñoo bi ma ko dugg def ay ay kurtu ko Amadou Lamine tous jotu ko da doon bëgg a jaxase xel may mën a yor pour mu indi ko ci ceeb pour ceeb mu dem tous jotu ko te may mën a xol bi daa gaaw a tooy moo tax mu doon wax ci am am ndax da ko xaw mi ndax defe naa ne macha allah may mën a gis nga ko may mën a bàcc station bi la bokk mais jinne bi instant bi mooy wax nit waxul jinne mooy wax instant bi waaw julli lu fi indi mu fay am na lu mu la joxoon tuuti la da ko wax xeet dafa façon tool bi am ko léegi de waaye ak heure bu ko amee dina ko indi heure bu tekkee koo tamit ubbeeku ubbeeku na sax ak ay ñëw fii dina jox di jox ak Mariama Camara. bëgg ko dina ko dégg wax naa mu ko indilee ci jox naa Mariama Camara expliqué naa ko rek man lu ma waaye jox ci Mariama Camara ma jox mu ñaanal ko te incha allah dina ñëw tisi bi ko macha na ko umu jaay nee na ko may naa ko gis waaye a jox sax waaye xale bi dafa ko bëgg Mariama Kamara ci xolam Mariama Kamara mi ngi màkk waaye xelam ak ñuy gëlëmal xale bi Mariama Kamara moo bi xale bi day jéem di xool di ko gis géej géej gi moo ak pont bi premier pont deuxième pont troisième pont ñu génne xale bi xale bi jël photo bi meer Daba Diouf moo aar xale bi. moo yaay toog sukk jël kursam ci ñaan. ñu fi toog ñëpp tedd nañ ci barke Mariama Kamara waaye ay boo ko mer loolee ba mu ñaan waaye bëri lu muy mer borom mbaax na bëgg Thierno te xam na li tax li am ci diggante ñaari xale yu doom yi waaye du ko wax ak a bëri sutura ak a suturaay doomu aadama fee mu def ci Kër Masar ñu ngi maye lekk di maye xaalis ay nit di ñëw ci moom bu leen di defal xeeti baax baax xale bi sax dafa bëgg xaritoom moom boole yaayam ak Mariama dama ndax ñoo dëkk Kër Massar sorewul yaay bi ne ko man nag danaa bëgg yaay ci yàlla ne waaye boobu ne gëmul woon ne doomam day dem ci association may wax ñuy ko dangay toog ba cinq heures ko bokkal benn bokkal mooy jëkkëru la jigéen day jox cër góor Ibrahima. non fii toogal loo di. ah di seetaan luuma yeeg yooyu. moom xam na ko ci luuma bi laa ko naroon génn waaye maa ma ne naa ko bàyyi ba famille ñëpp xam ba mu génn ci YouTube bi ñu xam ne xale bi caaxaanu foofu. fu mu dem jëkkëram day ànd ak moom ma ne la ah, suy dem dem verser banque sax ñooy ànd ah, su déposé cent mille un million la koy fekkat maa wax loolu man jënd ak maa am teggee ci ma akamaa jaw waaye bu dëgg jotee damay tàng wax dëgg du ma jënd de may mun a moomeel noonu yàlla ko wàcce noonu ak yiwam ak yiwam sànq dinañ ñëw ñu waxal sama bëri xat pour allahu bi laa bëgg a allahu bi waaye jarul ma koy gis gis naa ko ca as kon bi nekk ci sa bët allahu bët waaw waaw gis nga ko na koo gis fii ci àddina waaw waaye ma ca aras ma ca aras allahu bi ca aras la jóge ca aras la jóge ca bu ko xool tiit bu ko xool tiit wax waaye ca aras la may mun a yër ba sonn waaye aras la ko gisee. waaw gis naa allah gis naa allah junne yi dañ koy waaye ñoom ci aras moom bosan ma ci aras foofu la ko gisee waaye mais <laughs> bi loolu jéem a liggéey ba moom ci ko xooj waaj waaj xooj xooj moo tax ñooy ñuus ñuus di bëgg a jaar benn ba ceeb kon nag ñu fi jaar ba tey embouteillage jaar nga bay ñibbi. waa léegi macha allah leer na génnal ci Mariama kii Maymuna génnal nga ñëw ànd ak man Fatima Fatima jinne génnal ci Maymuna ah. nañ ñan jóge kanam. a ah, araya men to dina bàyyi benn dina bàyyi benn Fatima macha allah yow n'est-ce pas jullit na yow jarul ma lay tuumal kon kon génn jëkkëram nag jëkkëram fàtt naa la ko wax waaw mu naan day jéem a naan ko génn ci xale bi comme ni ceen mu leen def génn ci xale bi jëkkëram xam naa leer na ma ñu bëri dañuy dem di def ndawal ba mu fees <laughs> ah, yaay xas suñu taalibe yi dafa nobaat naan génn ci xel génn ci xel yàlla yàlla naan génn comme Thierno yàlla yàlla. jékki-jékki yàlla fi naan waaye ni Thierno mu ne bëgg mun ko nelaw rek day jàpp xoolal xale bi ne vidéo ma vidéo ma nga wan nii Thierno liggéeyam la. vidéo booy moom yaakaar kan moom jëkkër yi. Ibrahima Thiam. day jékki-jékki rek nelaw. nelaw te yow doo nelaw. xanaa ji nañu yaa koy nelaw loo. dama ko nelaw loo moom moo ànd na lu bari. day bëggee bay bëgg a dee pour teral jabar kon mu wàccee jabar ji da koy defal xeeti baax baax bu biir bi feesee day nelaw day nelaw mu lay topp topp xale bi bari bay day xale bari bu dee ko ma lay bon xale tam la comme ay nit ak doomu bàjjan ñëpp loolu la ñu ñëwee waa dana ko jàpp loolu la ñu nekk loolu la ñu ñëwee dañuy dañu xam weer dañuy viir waaw léegi génnal génnal yàlla. xale bi daa yàq dëkk dañuy foog comme ni ak wàllu waaye la. yow Faye bi daal day jéem a dëgër dëgër lu la. yaa ngi weer suñu taale yooyu génnal yàlla yàlla tuuti génnal. asalaamaaleykum yàlla Fatima génnal ci génnal yàlla baal yàlla. muy ñëw réunion mu naan ko ñëwoo réunion. yàlla ànd ak sa borom kër di ma dénk sa njaboot sa njaboot xamul ne loolu lañ ko fa tey. yàlla waaye yow. yàlla mu am ci war koo jàppale. du ko jàppale tayal bu bëgg a dee nag dafa bëgg lu yomb. toog ci fauteuil bi rek di seetaan tere. du génn doxantu da ngay génn suba teel di doxantu ji. kan yaayam yaayam. waaw loolu day génn suba teel. day génn suba teel ngelaw li di ko ëpp. mag day doxantu suba teel. julee. Mm-hmm. day génn doxantu. waaw waaye di toog télé. di toog di seetaan télé moo tax xale bi xam na ko télé. vidéo xool dessin animé la koy dalal xool seetaan journal. yi damay seetaan. da nga la yaay ji di seetaan sa bopp wax. Mike. journal. dafa xam dara jàngoo. yow yaa ngi xas suñu suñu yaay bi de. dafa bëgg journal doom ji boole na ko ak benn minute. doom ji moo tax kersa boobu la yem ak rek lii ak gouvernement bi dafa bëgg lépp ci suba. wala tiital ma rafet moo tax nag waaye xoluma li. mooy mooy mooy. nee na ko xoolal. maanaam daal daal daal. man ne ko yaa ma daal de. waaye doom bu judd rek man lay jël ndax damaa ñaaw. ndeysaan waaye dara jarabu wax wax wax sëy bi day tey tey du fa toog yaayam mi ngi dégg moom xam na yeneen xam na wax naa ko démb ci guddi wax naa ko Ibrahima moom Fatou Thiam du fa toog day boolu faal leen jël jëlaat ko soxna kooku la ñu kon ak ak États-Unis sa jabar xam na restaurant bu mag lañ liggéey ci affaire toog toog xale bi machine am ñaari weer mu bëgg a yóbbu xale bi États-Unis fekk xale bi da doon nàmpal ñeewal doom ñeewal dal doom jabar ji tey dañu ci yàq seen diggante dëndale leen loolu moo tax demul États-Unis waaye akay dem ci demaat dem dina dem États-Unis demaat day jël day boolu faal defar ko soxla kii day tas dañu ne day boolu man la du am doom dafay am doom li may mun a di wasi doomam bii moo ko yóbbu clinique di ko aar waaye dañ ko doon xeex ba xeex ba sëy bi tas jour bu tàkk dañu ne ko saraxel takk ci suuf ñu dëgër bopp waaye akay toogal xam na ne yaayam boobu la bëgg te bëggul dara dara nga xol yaay dinañ am doom bu góor incha allah rabbi waaye mooy mu naan naan dimbali ma ngir yàlla tudde ko doom ci ci jub day hésité nag dafa bëgg a tudde yaayam bëggee tudde muy mun waaye yaay gi nag war na ko tudde muy mun mu muñ ndax may mun a loolu la sàkk kon macha allah bu ko. léegi macha allah. buñ ci jàpp buñ ko tuddee. ñu génnee sax VIP la léegi tànkam lu muy metti na dañ. tànk bi lu muy metti. waaw na dañ. moom nit di ko yëg dara la jël mu ne ko jox ma ma sàngoo ndax bëgguma dara la feeñ ci sama yaram te lii nekk ci kanamam day génn man maa fàttoon kanam bi bañ mu ma dugal sama loxo di ko génne di ko génne di ko génne waaw ma ne ko mënuma dara dama nga ne seet nay dem sër bu ndaw sër bu ndaw mën naa toog nii te amul yaram yaram ne day ko wax na ko sa biir oto mu ne moom amul woon yaram yaa ngi fàttali ma wax ko faama waaye xam na ne feebar bee ko ëff ndax ñu bañ a xam ne dafa feebar maa ko ëff su ma génnee dafay toog ko waat ma bëgg day ñëwaat normal di sol ay yëre tubaabam yi normal di jokos jokos di ànd ak Ibrahima waxtaan caa loolu la bëgg. kon génn ci moom yàlla ci génn yàlla génn ci Madina Fatima Gina génn Fatima Moulé laay wax génn ci ci Maymuna Ba yantu lépp lu nekk ci yaram Maymuna na génn gis nga fan yu jinne day jël temps nga depuis ci suba maa ngi ci affaire jinne bi muy wax yantu aha génn léegi génn añ bu pare añ añ am na fi génnal yantu yàlla ndeysaan añ bi am na fi macha allah waaw génnal génnal ci may mën a yàlla kan noonu yàlla yàlla yàlla génnal ci xale bu jigéen bi génnal ci may mën a baax yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla tuuti. yàlla tuuti normal. ak a ñàkk ci fulla. bi moom mi ngi fi ñëw ci suba. waaw xale bi ñëw puus ko. génn bi bara ñool ñaaw ñool. yàlla bi nag day paas ci xale bu jigéen bi ba yàlla tuuti biir bi li nekk ci biir bi. waaw li nekk ci biir bi yëpp génneel lépp lu nekk ci biir bi. day xott ci kër gi rek di lekkaale. biir bi fees. génnal génnal ci biir day xott jëkkër ji di lekkaale. bëggul jëkkër ji xeet. macha allah yaatu yaatu yow sax nag. yaatu sa jabar bi nekk États-Unis bëggul nga xiif bëggul ni ngay def neen na ngay lekk ba suur. waaw naa yi dina ñëw fan yi. soxna Mariama yam le dina ñëw fan yi ah. xam nga ah Thierno yaa xam lépp nag. nga jëndal ko billet. waxoon ñu ko démb. defal ko billet un million ndax mu góob la yàq. am na billet. macha allah. yàlla ci yàlla ci jënd waaw danga la wax de. am na billet macha allah. muy fajkat mag te mu jokkoog jëkkër Ibrahima dinañ fi def affaire. dinañ def clinique bu mag fii. ma ne xoolal. Ah. bu Ibrahima ubbee pharmacie. mën naa ubbi clinique ci suuf. bu ibu bindee moom bu fajee astaxfirullah moom bu fajee bind ordonnance bu bindee ordonnance bu bindee ordonnance dañu yéeg ci Ibrahima Makhtar Thiam jënd ko ku nekk amal boppam xalaat la am xol bi moo yaar xalaat la am idée la am moo tax man nag ko école moom du xam tus sama waay day. teg naa ko dégg dégg dégg. kan noonu. lii. mu fay ma lool ma waaye xale am na lu dugal. yàltu yàltu gis ngeen fajum jinne day jël temps liggéey bu metti la. yàltu ween bi am na lu mu defoon waaye xale bi génn ko. waaw léegi li ne ci ween bi yaram beeg biir beeg. waxoon na la ko nag ah, naan ak kurtu kan. léegi pat ma daa laa nee na laaj amul patience. amul patience maa ko paree dama doon am dama ko démb ba tëdd ci la dama man nii laa fi dëkkee de. dama ko doon aar ma tax nelaw loowu ba ko. ah nelaw loowu ba ba ca ba ba ca. nelaw loowu ba ko ba ko tey. reeroo. dëmm boobu nekk ci la dama. donc lijjanti leen añ après. lijjanti leen añ dégg nga. léegi waa génnoon nag. jërëjëf man tampi xaala kam waaye fexeel clinique bi ak kii bi am pharmacie bi dina jege ci dina toggal dina toggal ay xeetu baax baax yow bëggoon nga bëggoon nga ubbi pharmacie nga da ngay ubbi pharmacie waaye foog nga jàngal ak ceeb loolu mënul nekk ah, ah bu ma xas nag bu ma xas nag loolu moo la dese woon cëggalu moo dese woon ci nebi yaay ma ko doon jox xam ne muy ay rakk yow ñi ñu wax jàngale est-ce que jàng nga jinne maa ko bolok yow daal da ngay bloqué gars yi. damaa bloqué njàng bi ubbi xel bi muy am ay jinne. man jinne ñoo may jàng man dama fooy woon sama jàng bëgg eh, topp topp àll bi rek. topp li ma jàngoo alxuraan ñu naan jàngoo alxuraan ak ngaa jàng alxuraan. dañuy yàq der rek. ma leen faale wax bu yàqu la waaye kee dafay def naan YouTube day fay fajul dem dem. aywa génn. yàlla génn génn. dugg lay baax waaye booy génn problème la. waaw génn bi day métti parce que génnal ci biir bi génnal ci yaram bi. yàlla tuut yàlla tuut day jël temps fa mu jinne gis nga coono mi ngi ciy daj bu ne nga daj day jël temps quatre heures de temps cinq heures de temps parfois nga jàpp benn jinne cinq heures de temps nga nekk rek di ko yàltu ko yàltu ko bu mu laal ne ko teel a da koy yow yaa defoon loolu. waaw loolu lan moo la jubloo woon ci loolu. man ci nekk lu moo fa waaye ndox mi bu eggee moo may eggale jàmm fi ba def dofi ni sax hmm. bu eggee day naan ndox ba mu jeex dara du ko ci fekk ñu yàq dara naan day joxe gasi essence ren ak ñoom mu gis nga jinne dina ko jox gis nga jinne fii lu baax baax la ceeb di joxe. lu baax rek te lu mu fi joxe da koo mesuré da koo mesuré nee na xale bi sax amul amul lan amul danger xob yi ko joxoon hmm. maa ko tegloo maa ko tegloo eh ma ko yaayam jël di baxal di naan moo koy faj yaayam yaayam ko jël nag doon ko ko ci suba moo koy fajoo ak jàmm tànk yëpp loolu koy jëlu day jof fii cof fee cof fële baxal ba mu ñor di ko naan lekk ah, lekk bu baax waaw waaw moom la ko fa tegal yaay bi moo tax faju boppam si ak bëgg ndey waaw kon nag macha allah jërëjëf jinna alawaa yàlla de léegi mun la génn aka ngaa bëgg pulaar ah aka ngaa bëgg pulaar waaw ah, man deret wël mooy daw suma yaay suma suma suma yaram waay waay waaye olof bi nag ci ngay jàng. waaw ci ngay wax ñëpp xam. waaw ci olof laa yàlla ñëpp xam. olof bi ngay wax. gënal gënal ci may mun a. ay yéen ma mën a xoole. waay dina màkka. du génn gum léegi ndax. léegi surveiller Mariama Camara. léegi génnal macha allah. ko ba say. loxo soxna Mariama am na bëri ñu ko dar ñu ko dar bëri ñoo ko dar maaka di ko surveiller am ñu ñuy ah, dama yëkkati ay jinne ñu koy surveiller di ko garder moom ak Adja Soxna lay bay buuru màgg xam na loolu xam nga la sa yaay ñëw ñëpp xam nañ. góor man xam gas weer. dina gas weer xam na moom mi ngi dar sa yaay. Ah. góor su dal ko tuwaat. surveiller ne kii mooy yaayu Thierno dañ koy gàllal mu ñëw ci jàmm. ubbil nañ ko kaala gi avant mu ñëw. Ah, ñu def ko ci internet. ñu ne ku xool. ku xool sa yaram araamal na safara. ak ay dëkk sa yaay moo ko waral. li mu dem man ko moo tax ñu ubbi kaala gi def ko ci internet. ñi baax ñëpp gis. loolu lu rëy la. su ma waxee fii ba fajar du jeex du jeex sa yaay dama am moom la ñu ubbil kaaba gi avant muy egg si nga ko di gis. loolu lu rëy la Adja Mariama xale bi da cee bëgg mooy mu da cee bëgg te xam na lu ko yaay ñaanalee sa yaay bu ko ñaanalee ca kaaba ñaanal na ko sax ndax yër bi da cee bëgg ñaanal na ko avant muy jóge waaye ay bu eggee mag bi mu eggee mag ci la gën a ñaanal xale bi ak ndeyam ak rakkam ndax xam na lépp moom tam mu ne bi ngay judd dafa gumba woon ak ay dëgg ak ay dëgg macha allah jënd baa ngi wax de aji aji bi ute na ak aji yi bii nag yaa ngi ceerno mu le moo dem màkka jënd wax allah akbar allah akbar mu def ko ci youtube dégg ci Facebook xaritam ñi ko xool dem seen yaram araba na safara man jinne maa ko wax. waaw macha allah def naan téléphone yaa ngi sonné ko ba tey ñu mën a jël nit ñi wala dafa am solo. dañoo bëgg a toog Europe di jokkoo. waaw Europe yi nañu paas ñëw nag jàkkaarloo yow. waaye di nga yóbbu ñu bëri de. yaa ngi jënd loolu bu ma wax yaa ngi du jënd pour ñoo ànd xale bi sax war na cee bokk de Europe. Asie États-Unis fépp ci àddina da ngay bëgg dem yóbbaale kenn taalibe waaye aka ciy bokk. macha allah waaye léegi génn. ñaari ñaq da ciy bokk. gan yàgg ñaari ñaq. gars yi soxla nañ fi wala. ak tàng la soxlaa fi nañ ñëw. yàlla fi tàng la. waaw tàng la. ah léegi toogal foofu rek sa sa doom dina defaral nga naan tàngul tàngul tàngul tàngul ngeen di xuloo di xeex rek. dañ fi soxla. waaw mën nañ ñëwaale. mën ñëw de ndax fi nii génn bi day jël temps. waaw léegi génn. maa ngi nii di ci ba tey maa ngi ci waaye xamoon naa ne fii lay eggalee de moo tax ma ne balaa may ñëw naa def li ma war a liggéey ba pare soo génn bi xaar yi. maire bi ñëwee noonu. gaa yi ci caméra bi su ma benn taalibe ndeysaan. mën naa dem julli de tàkkusaan ndax raw na ko ba pare. waaw mère waaw mère dama julli. wan ko saan foofu julli xam na fi mu war a julli ji bu demee rek ma jàkkaarloo yàlla kàbbal xam nga nag après day bëri kersa. bu paree day bëri kersa. léegi gënal ci mu gën a gaawee. biir bi nag bu demee këram day naan ndox mi nekk foofu ci siwo bi ak ëppal bañ a ñëwaat si yow dina laaj garab ndax dafa bëri kersa tuuraay dina toog ci des muy économiser yi. dinaa ko joxaat tuuraay. waaye ndox mi ndox mi bëri ko la ko def ndax ëppal. ba ñu jeex ñu ne ñaar naan. bëri ko nga jox ko lii mu jël bëri ko bu weer. def ko ci ndax bëggul na ñaanaan may wax. may wax dëmm bi nekk foofu saa yu bëggee nee na mën a jaxase waaye. ba mu ne mooy nga. Ah, ñu ngi dégg ci moom ñu ngi jégalu di bëgg a jaar fii di am pour gañ pour gañ tous. nee naa leen bu ñëwee fii. jaade dina jéem a nax. mooy indi coupe bi. dina jëndal dessert échange. jaade teg di la ma teg ñett yi matoon rek du la ma teg. indil ma ay drapeau indil ma drapeau indi ma yére ne ma nag yéen supporter ma bloqué ko. ah kab bi daf ci waroon bokk. kab bi daf ci waroon bokk maa ko bloqué. nee na indi liggéey. waaw sama benn taalibe ndeysaan moom moom moom moom kii ñu nekk France nii. ñoo indi caméra yëpp am sama benn taalibe bu yokk caméra yi yokk kii bi. loolu lu mu tudd affaire boobu ci kaw waaw. ah. bébé comme lii bee bee la. boo équipe ñu ñëw di monté nañ noonu. moom bu ñu filmé bu ñu filmé wul baa ngi lay gis. waaw li sécurité la ci kër bu baax da ngay bëgg ëllëg si biir ci affaire yi. day wax nga faj bébé jinne mu naan fajoo moo gën a xam ne wér naa fekk na. ñëw fi démb moo tax ma bloqué may mun a. day gën a ci may mun a dégg génn bi man moo jël temps nag moo soog damaa toog ci biir xam gi rek lu mu lekk ma bokk ko moom ay ak ay lekk nag ah fa nga toog nga mu toog toj ko ak sa ndox mi ak garab yi nga jox ko mu naan ndox ma jox ko garab yi garab yi de day toj bi day day dëmm yi ak jinne fu ñu nekk garab yi da koy eh, nga toj lépp hmm. lépp nga toj may wax ko dara bu demee engrais ba am ndox mi ko jëkkër ji naan insuffisant vraiment jaay xam-xam pharmacie dafa bokk médecine traditionnelle benn xale bi lu mu diwu nag pour leer duma ko leeral maa ko def lu mu diw yow tax du leer kanam bi lu mu koy xamal def ci lunette muy faj rek jëkkër ji am na lu mu ko fajalee waaye maa ko bloqué dina ñëw garaaw de xoolal loolu xoolal pexe jinne ak pexe nit bokkul jinne dañoo bëri pexe nit diw fan yi jënd na diw ba mu des tuuti muy économie da def ci tibo xool la yam day yokku ca na leen leer bu yem rek dafa metti torop sax ceeb la day jël temps doo lekk doo naan kaay jël ko mu cheikh moom moo jëli nga Cheikh ñu lay tajal daal dëmb la dëmb la doo tuus nitu njaay la dëmb du nekkal la dëmb du nekkal ceer la boobu jóge woon Kaolack nag bàyyi ñas bàyyi ñas bàyyi ñas bëggoon a jaxase fii maa ngi bañ koy tricher dëmb du nekkal man du damaa bañ koy tricher moo tax xale bi ak njéeme ak faama baas di ànd waaye rakk day xaw a fiir tuuti fa xaw fiir hmm, ma wax loo rek muy wax rek dañ cee woon rek bari wax ba tey du rek di dem. jigéen du gett. a bàyyi. jigéen du gett rek yi jigéen du bari lu muy gett da ngay muy gett. Cheikh de daa sonn sax nag rus koo wax <laughs> ko bëri kersa. dina bi ñëw fi démb ne ko salaamaaleykum la nga def. di nekk dugg ci néeg bi mu romb ko diis mu yóbbu ko sax nag daa bëri kersa waaye mu dem ba ci secrétaire ne ko doomu bàyyi nga daal di présenté nañu borom baax nga sama doomu bàyyi nga dangaa baax. Babi doo nga day jël temps de. Babi doo nga tax nag dafa bëgg ko sant ba waaye papaam dafa dëddale de ak yaayam dëddale rakkam ak yaayam. léegi nag man mu bëggoon nga bàyyi wax bi mu dem fekk ko Togo yóbbul ko gerte suukar naan ko may mën a moo la ko defal ndax jabara may mën a la tudd xale bi. Bocar ba lekk ko moo tax ma woo ko depuis Togo nag bu ko lekk bu la waxee may mun a dangay foog ne man la lu man de kooku may mun a juuf la tudd man ma tudd may mun a baax <laughs> moo ne xale bi nag nii la mel mu toog day animé waaye bu ñëwee ci yow rek day bëgg kees léppay naa doon xepp laa def mburu bi beesul damaa bëgg mburu mburu bu sànq dama la koy rusoon a ñaan nga jël ko jox ko mu ñaaw allah ko bar yàlla rek mooy buur mu tëdd sama xarit ba sa xaanala ma ne génnal laa wax génnal génnal ci may mun a jinne bi moom yónnee moom neex na trop. dafa bëgg boppam nag. gënal ci may mun a. gënal wala ñu koy feere léegi. Hmm, bu hmm? weex la naroon sol di ma ne ko ay boo ko solee dem <laughs> weex dina nekkaat rouge. léegi kon gënal ci moom. maa ngi nii de dafa yéex rek ndax doole jee xaw a jeex ci guddi ba tey ceeno nag ma toog rek di génn rek ceeno mm-hmm. bi ci guddi ba tey jëkkër di wax naa ko filmé mu ngi ci portable la jëkkër wax nga ko yëpp ay metti ndax jël faj boobu dëmmit bu mën a lekk bismillah juróom yaayam yéen nañ ci may moom yéen nañ ci may moom ne ci demi fuuy na tëdd si génn ñu gane génn rek génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom lii moom fexe ba ma jiitu ko di génn ñëw indi junni junni junni dugal mi faa ci biir jënd tike waaye jënd tike génnal génnal génnal. waaw li ci kanam gi nag débloqué naa ko démb. li ci kanam gi. li nekkoon ci kanam dindi naa ko set bi. ok kon génnal dafa ëmb mu ne dafa naan pilule. ma jaxase ko ci buntu pharmacie bi. changé ko def fa am bu te yaay dindi pilule bu baax bi bàyyi ko ci biir pharmacie jël bu bon bi jox ko mun naan. foofu moo ci nekk kon kon kon yéen ñu ne da ngeen di changé ay pilule ak yooyu. non. kon yéen lu ne ngeen di def. bu leen neexee nga dugg ci pharmacie yi. changé garab prévoir changer lieu bi. kon parfois da ngeen dem prévoir changer lieu bi. moo tout le temps ma wax ko. da ngeen dem prévoir changer lieu bi. yàlla na yéen yara kër doomu nay moom dagg périgam bi wax na ko waaye dëmm bi mu àndaloon bëggoon a jëfu foofu lekkal mu naan wallaay yow nii. iPhone am naa ko iPhone kay ñu fi ne hmm? ah. gaañ gënal ci may mun a gënal gënal ci gënal ci may mun a gënal ci may mun a baax gënal ci may mun a baax yàlla génnal ci moom génnal ci moom mun a baax génnal ci mbay mun a baax génnal ci moom génnal ci yaram moom mooy génne sax beneen façon bi yam génnal ci mbay mun a baax. ma leen woon ni mën nga ci boor bi. ah. ma leen woon ni mën nga mën nga fépp. da nga leen di. wan na yow mën nga fépp. man fépp laa mën a génn. damay teg samay la fa tàllal di génn ndànk ndànk. génn instant yi maa ngi ko ci oom bi. yaa ngi ci oom bi. balaa tolloo ko. gënal ci moom. nga jinne bi nee na day wane ne mën naa fépp. gënal man kay fépp lépp laay lépp laay génne. sotti ko mu sotti ko ndox day jinne sotti ko ndox mi dafay woo aada génn ci ci ci amin kan mooy wax ni fu mu nekk ni nga ne nga fay bu sawi jee foofu lay jaar dem fii ci kër gi lay des de waaw mais fii ngay génn doog a dem pour ndox bu war a génn nit nekk si nag foofu lay jaar génn mu ne mën a toogaat si néeg bi suba génn mun a toogaat si néeg bi comme mu dem ba mun nga ko tuwaale jàkkaarloog gars yi ñu xool ñoom ñoom fekkee ne ñu monté caméra yi. nga di déglu rek rek. nu muy def. Mm-hmm. xoolal bu mm-hmm. nu bëti di mel. gars yi di monté caméra yi yàlla ma na la ñu fekkee li ñu mën a gis. nga ne yow la Kanka Moussa. man la Kanka Moussa. ok léegi loo bëgg. doon sa taalibe. doon sama taalibe. waaw. sànq li nga ma wax bëri na li ma fi waxoon bari na trop. bari na trop. waaw dinaa la aar. aha. maa la wax loolu. dinaa la jël ay clients. dara bi ma la wax nag dóor àllarba bu ko fàtte. mooy ban sarax. soo bi fii. juróom-ñaari ne yi. juróom-ñaari ne yi. waaw kon nag taalibe bu leen nga jox benn nen. taalibe bu leen jox benn nen. waaw man dëgër sama génn dëgërul bopp. Ah? sama génn dëgërul bopp. dëgg la waaw. léegi taalibe bu ne ñu ko. benn nen benn nen waaw. wax alxamis après waxaat waxaat mercredi. la wax àllarba. àllarba àllarba laa sànq. Ah, ñu wax ñu def àllarba sarax. waaw def jox ay taalibe. ay taalibe waaw. yi am fii bu neexee yàlla accident dina ko tëj. accident dina fi géej. parce que chaque jour accident am suñu koñ bi. waaw ci yàlla dina fi géej. incha allah kon macha allah jinne bi wax na loolu dinañ ko. waaw te jinne bu baax laa. yow jinne bu baax la. waaw nekkuma jinne ju bon. nekkuma jinne jullit nga. waaw fexe naa bëgg naa nekk sa taalibe. nekk si kër gi bëgg nga nekk sama taalibe. waaw libéré ndongo mu dem. nga libéré ndongo xale bu góor bi nga dugg nii. waaw xale bu góor bu mu dugg. waaw. ok c'est kon macha allah te jinne bi jigéen la. Mm-hmm. Kanka Moussa. Kanka Moussa. waaw bu soobee yàlla dinañ fexe pour nga génn. dinaa la aar. dina ma aar. waaw képp ku la sànni. Mm-hmm. naa ko pour mu moo ma aar nañ ko baax. yàlla aar dolli waaw damay dolli. Uh-huh. Mm-hmm. waaw. kon dégg lu jinne bi wax. moom nee na yàgg na topp xale bu góor bi ba yaayam gaañoo nga wax n'est-ce waaw. ba ah. gaañoo ba mu ñetti at laa ko topp. ba yaayam gaañoo ba mu amee ñetti at nga ko dugg. waaw nga ko boobu ba tey yaa xale bu. xale bu nga ne yàgg yàgg fii lay ñëw. bi ma bi ma nee laa xam ne ma koy yàggee tey. jinne bi ba mu amee 40 ans dugguma ci kii. waaw laa xam ni yow yaa ngay faj bis dina ñëw da nga judd da ko faj. gis nga ko loolu lu yàgg la. waaw lu yàgg la ah? waaw. kii am na téeméer ak ñaari at. nest téeméer at ak ñaar la am. sànq wax na yëpp wax na lépp. nekkuma jënd ji itam lu ma la wax tàggal téere. sànq lépp la fi wax. Mhm. daanaka kay day waxaat ni mais sànq lépp la ñu wax. waaw. dafa am loo ko bëgg a laaj. waaw sa papa doon def su ma la bu ma nekkee ci kër gi dina baax de. Hmm. maa la wax lu mel noonu du nga comme yeneen jinne yi jinne bu ma jàpp day nekk ak man. dafa am la nee bëgg a ñëw fii. seen jinne yi ñoo leen moo leen di moo tax ma la defal saraxu laax bi. waaw saraxu laax kañ nga wax ma def ko. Euh, jouru samedi. jouru samedi. waaw ñetti bool. suba nga ma waxoon wala samedi. samedi laa la waxoon samedi. waaw. waaw kon baax na. parce que jinne mooy wax nii. mooy wax loolu man jinne Kanka Moussa. moom jinne Kanka Moussa jigéen la. Mhm. yàgg na ci xale bu jigéen xale bu góor bi. waaw bi yaayam gaañu ba moom ñetti at laa ko toog. Mhm. kon dèjà Fata boo amee loo bëgg laaj. lan moo tax mu topp xale bi. waxal ci kaw Fata. lan moo tax nga topp xale bu góor bi. bëgg ko rek. da koo bëgg. ah mais ngoon da nga ko doon yàqal tamit. dama ko doon yàqal kay. ah mais nee nga da ko bëgg ba pare di ko yàqal. ah di ko fiire rek. Hmm. waaw nga. man jullit laa waaw. doo def lu bon. non non. lu tax ngay def loolu kon ndax boo yàqalee nit ki def nga lu bon. ah bëgg ko fiire rek. Hmm. waaw ko kay papaam. Hmm. waaw jaxase ko kay fameem. waaye aar nag lu bëri ndax dafa liggéey bu nekk liggéey nañ ko. waaye man moo tax jàpp ko. yow bi nee bi nga amee 40 ans nga xam ne Thierno Moule mooy fekk. waaw bi ma amee 40 ans laa xam ne moom moom dinaa dugg si nit koo xam ne moom moo koy fay. Mm-hmm. waaw man ak ay maamam la woon maamam bu dul yaayam. Mm-hmm. waaw. da nga koo gis daal. waaw dama koo gis. Mm-hmm. tey naa ko bisu talaata ni ko demal foofu mu faj la. donc. Ah, ah. tey nga ko bisu. Eh. bisu talaata ci guddi. ma ne ko demal moom moo lay faj. ma ne ko demal wax na loolu. waaw moo tax. wala kan. wala ci la sant Moussa. ah. léegi continué. waaw waaw. léegi nag doon nga ñëw fii ci Thierno ngir choisir pour nekk taaliba Thierno. waaw bëgg naa ko lool. fan nga doon dégg Thierno ci fan. ci jinne yi wala ci fan. Thierno waaw benn jinne bu ñu naan coow. Mhm. moom ma wax ni gis dina ñëw ku mel ne Thierno dina dina ñëw. Mhm. seen soowu mhm. waaw. Kolo Coow moom fu mu dëkk fu mu nekk. Kolo Coow Kolo Coow yëmbal. yëmbal dëkk. foofu la nekk. foofu la moom sa lan la. sama doom sa doom la waaw. sa doom la. moom moo la waxoon ne danga ñëw fii nga génn. waaw nga génn. ma génn waaw. waaw ah, kon naa yor Thierno ku mu nekk sa taal bi. waaw mën naa pour nga nekk eh, astafurlaa nga nekk sa verre nga jàkkaarloog jinne bi bët ak bët da ngaa xaw a tàppe. baax na. lu nga fi a néegu cerno bi. yaa ngi dégg. maa ngi dégg la. ma ne. waaw da nga choisir cerno pour mu sa sëriñ. waaw damaa choisir cerno pour mu nekk sama sëriñ. est ce sa doom yi da ngeen indi a yow rek yaa bëgg a. dama leen di indi waaw. ñoom bëgg nañoo ñëw. ñëw waaw. waaw. léegi yow xale bu góor bi dañ ko bëgg a génn ci génn ci moom tey tey tey tey nii nii. waaw léegi gis nga moom ñëw na def na àndut ak kenn àndut ak kenn ñëw na fii dafa ñëw rek sama nekk daan dafa ñëw gis ma rek daan Guinée bi nag nee na moo ko fi indi pour ma dimbali ko nee na dem na fu bari dem na fu bari waaye dara waaw baax na léegi dinañ xool na ko dimbale

ah. yaa ma gënal lu ma ko xoolal xoolal dina ci génn ci ma ngay balaaye kat. yow kenn la mu ne yaa ma gënal lu ma eh, ko xoolal. ma ngay balaaye xoolal. defoon ba taa foog ne bu ñëwee bi day daal des ci kër gi laa bëgg. Hmm? des ci tey tey jii kër gi laa bëgg. des ci kër yi nga bëgg yow. tey tey jii man jinna ji. man jinna kànkam saa des ci kër gi laa bëgg tey. des fii nga bëgg. des fii tey. yaa ma gënal lu ma mën a am. la ma tax nga bëgg fee des. bëgg koo jëriñ nga ko bëgg a jëriñ. ci sama doom yi ñëpp na ñëw. ñaata doom nga am yow. man am na ñeent. ñeenti doom góor la wala jigéen. ñaari jigéen ñaari góor. la la wax na mu tudd. ci la ci mala ca waaw mhm. bëgg ñu ci lu ci mala ci rëpp ci mala ca. Eh, ci mala ci rëpp ci. mala ca mala ca. ñoom bëgg ñu def si daal. ñoom nag am nañ ay ñoom. moo la ci am la ci dafa si am doom. ah tuuri ñaan nga am de moo la ci moom neexul di doo def Fatima wala Aboubacar. yooyu dañoo bëri façon. moo am nga sët. am na amaat am na eh, waxal dëgg nag am nga sët bàyyi sët bi ngay bëgg a garder bàyyi ko mu. ñaar nga am ñaari sët. wuyu kooku nee na ñaari sën nga ñaari sën nga ko teel a des ci la jébbalu mu jeex. jébbalu naa. des na. ki nga bëgg la mu lay defal say muraad. non non ñëpp ñëw nañ. indil ñëpp. ñëpp ñëw nañ indil. indiwaatam góor la jigéen. benn sën bu góor la. ak bu Cala. am na jigéen xaw ma Cala xaw ma Caloo am na bu jigéen bu des. Moloco. bu jigéen bi Moloco. waaw. ok ñaari Cala ak Moloco. Calajo Moloco moo tax mu mel ni Calajo Moloco. waaw. Cala ak Moloco jigéen bi. ah ana ñoom ñu ngi fi. ñu ngi ndaween mais dinañ ñëw. fu ñu nekk. ndaween ndaween ci booru jàkka ji. ndaween ci booru jàkka ji. waaw yëmbal. ah yëmbal. yëmbal waaw. booru jàkka ji. booru jàkka ji ñëw. ñoom bi nga ñëw ci yëg nañu. yëgul. yëguñ la. mais yaa leen bëgg indi boo demee. maa leen bëgg indi maa dañ. maa dañ. jinne bi après damay gis ak moom bi privé euh. laaj koy bari mu wax. Hmm. mu génnee ko ci kanamu nit ñi. ngeen gis bi day normalaat day tranquille kii noonu. yàqal naa ko liggéeyam kaw la. kan xale ban. ndongal. yàqal ko liggéeyam voilà. luuma au lieu que nga nga toog Dakar na ko luuma dafa fiir. may mën a dafa meloon dafa bëggoon dëgër bopp dama dëgëruma bopp. yow yow nee nga da ngay sëriñ bi ci wàllu baatin wala xeex loo ci dama dama koy jëriñ ci baatin. Eh, kii na dama koy jëriñ képp koo xam ni bëgg na ko def lu bon. Mm-hmm. mu pousse ko mu dal ci kawam. defeyaan yi quoi. dinaa ko xamal ci lu bëri lu mu mm-hmm. <laughs> dinaa la feeñ ci gént di defeyaan di xamal ñu la bëgg a yàqal di la xamal ñu la bëgg. dañ ko feeñu ci bi. dinaa ko feeñu ci gént man man maa la wax.